waaw noox ku mu dajee loon ay kuffaar ay bandi ay fàq maan yoo xam ne kiimaanu noox mooy bato bi ak ndox mi yàlla balal ci kaw ak toj ci mu bal doomam ca la dee jabaram ca la dee kon lu doomu sëriñ si xaar ak jabaru sëriñ si ku ci jubalul yàlla da duma moom bu leen neexee muy dëgg ku mu naqari muy dëgg man fii ma toog kenn laa fi toogalu ku du sunu borom imraata nooxin wa imraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaanataahuma dañoo trahir seeni jëkkër yàlla ne trahison ba amalu leen njëriñ su yowmal qiyaamee safara laa leen di dugal muy yax bu wér du xesa nga naan du dëgg noox kéemaanam bato la kéemaanam suuf su balak ndox la kéemaanam asamaan bu balak ndox la ñu avancé Ibrahima luy kéemaanam doon ren di doom ja ñu fomm ko jox ko xar ñu dugal ko ci safara lakkul kéemaan boobu la am yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima booba mu ngi contre Namrud te Namrud te yilif monde bi mës nga gis loolu Macky sàll jiite senegal ñëpp déggal ko benn Iran Ndao contre Macky repp ma Ibrahima faalewu ko moo mujj rey Namroon ci ay ñaanam xam nga lu dal Namroon aw yoo moo dugg ci nopp yi moo médecin yi ne leen na dañ baa ma rey leen gars defi pexe pomp pomp yoowi ne ci yuur gi naan wuu gaa yi gisee xam ne da leen di rey ñu ne ko nañ ko wax ne ko dañ koy pikiir ba yaramam dee ñu dagg bopp bi defal ko ko bopp jama dañ ko waxee mu ne waaw leen góor ndax yàlla nag warte niroog ay jaamam bopp dagg leen gaa yi pi pikiir ko kuppati dagg bopp bi defer tëgg yi defer bu jama ñu monte ko ba fii may wax de jogagul de xaw ma jog na am de ñu toogatoo gis weñ ñu saay-saay yooyu ñëw mooy yu bula yu ngand yi wër néew mooy kii deena deena fala doxee faatu benn nit a ko deeloo mooy Ibrahima kon Ibrahima kéemaan na mooy safar kéemaan mooy bëggoon a rey doomam bàyyi ko kooku kéemaan la ñaara nga jël Moussa luy kéemaanam kaan ba mu yoroon